gannaaw ba nga xamante ne ñaate njiitu réew ya fi nekkoon di Abdoulaye Wade ak kile di Abdou Diouf daal dinañuy àdd ci situation Euh, crise politique bi ñuy nemmeeku jamono ji fii ci diwaanu euh, Sénégal euh, ki nga xamante ne nag moom mooy xalif général de des Tidiane Serigne Maysi Mansour gannaaw kile di xalif général des Layen ak kile di archevêque bu Dakar daal di àddu ci situation réew mi moom mi la nag di Serigne Mbaye Sy Mansour démb nag daal di na yëkkati ab message de paix ak d'apaisement ak li nga xamante ne rek moom mooy appel au dialogue bi nga xamante ne nag ñële di ñaari jiitu réew yi fi nekkoon ñoom ci loolu sax la ñu daal di eh, prôné waaye nag eh, ki lay di xalif général des Tidiane di Serigne Mbaye Sy Mansour moom nag nee na nag eh, nañu ànd ak dal ànd ak suñu xel te daal di waxtaan waxtaanee te moytu yàq bi ak li nga xamante ne rek moom mooy dialogue bi nga xam ne ndax mënuñoo def lenn waxtaan amut mu mel ni nag moom mi lay di xalif ci li nga xamante ne rek moom mooy apaisement la daal di woote maanaam ñu tuddee ko ab fatwa ci li nga xamante rek moom mooy crise politique bi nga xamante jamono ji ji ñu ngi ko nemmeeku ci uh, biir réew mi gannaaw ba ñu dàq ne élection présidentielle uh, yi daal di koy jëlee ci uh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bii la ñu nekk daal di koy yóbbala 15 décembre maanaam fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 balaa boobu nag kii di njiitu réew mi Macky Sall moom nee du bokk waaye nag dafa woote ab dialogue maanaam daal ab waxtaan ci mbir bi ni mel gannaaw ba nga xamante ne nag yenn ci ay marche pacifique sax dañ koo daal di dàq di ci biir réew mi ba uh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru uh, février bi la ñu daal di nekk waaye nag uh, jamono ji la réew mi nag mën nañ ko wooye ne appel au dialogue la ñuy daal di dem ngir apaisement ak daal di régler yenn ci ay problème waaye nag Pierre Atepa Goudiaby ak kile di Alioune Tine ñoom nag daal dinañ yëkkati ay kàddu ci situation Ousmane Sonko ndax ñoom nee nañ léegi tey rek ci ay bës nee nañ ñu joxe date waaye kile di Sonko dana am ab liberté provisoire wala sax saay ñu daal di koy ah, libéré waaye nag du ñu joxe date waaye nag ci bés yi rek wala ci fan yi ñu daal di ah, jëm